alhamdulilah waxda salaam wasalaamu ala almabuuthi rahmatan lilaalamin nabiyina muhammad salallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokki jullit yi ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla di ko topp ci di ko foglu ci def ay ndigalam ak bàyyi ay tereem ndax loolu rek moo nu mën a jariñ bu ñu dajeek moom te moo nuy jariñ it bu ñu wéetee sunuy bàmmeel nga xam ne du ñu am genn wéttal lu dul sunuy jëf yàlla na boroom borom yërëm ñu bu ñu yeggee ca loola xutbay tey ji ab yóbbal la muy risaala ila almuqri'in wa ahli alqur'ani xaasatan aw aama ab yóbbal bu jëm ci ñi nga xam ni ñoom ñooy jàngale alquran ak di ko jàng ak ñi nga xam ni xëy na ñoom jàngale wuñu alquran jànguñ ko waaye nag fonk nañ ñooña di sonn ci alquran ak façon lëggéeyal bu ñu ko mën a lëggéeyal moom alquran ci jamono ji nga xam ni xam ngeen ni alquran ci boppam coow lii ñuy coow jëm ci moom dafa bari lool fii ci suñu réew gis ngeen ci weer yi passé yépp ñu ngi coow ak a wax ci ab loi boo xam dañ ko bëgg a woote waaye jàpp naa ni loi boobu mënoon naa ñàkk ndax la tax mu mën a ñàkk mooy ku bëgg a dimbale alquran mën nga koo dimbali te doo ko santaas dara te it laajut nag nit ñëpp nañ jëm fenn ka tànn day ubbi école nañ ko bàyyi mu ubbi jàngale ki tànn moom daara la bëgg ubbi nañ ko bàyyi mu ubbi jàngale suñ ko mënee dimbale dimbali ko buñ ko mën dimbale ñu bako te jàpp naa ne sax ndimbal ma mën naa ñàkk ndax fii ba fi alquran duggee ba tey daara yaa ngi dox te kenn mosu leen dimbali te defe naa ne at yéen génn moo gën a nekk ati bekkoor ci at yi nu toll tey kon jàpp naa ne dimbali daara ak bañ koo dimbali yépp teewut yëf yi dem alquran nag ci boppam léeg-léeg ñu wan ko nit ñi ci anam goo xam ni doo ñemee wax dafa xeebu ndax xam nga ni téeréb suñu borooma waaye loolu ngay fas ci sa xol waaye bokk yi bu ñu xamoon alxuraan ni mu màggee fasul suñu boroom ak ñiy yëngu ci alquran li leen suñu borom te dencal ci ay teraanga kon de jàpp naa ni kenn ku ci nekk doon na ngéejoo sax moom day bokk ci waa alxuraan moo xam day jàngale moo xam day jàng moo xam day bokk ci ñay dimbale ñooña téere bii di alxuraan di mbokki jullit yi sunu borom moo ko wàcc ci jaamam bi muhammad mu nekk téere bu jub amul lu dëng mooy gindi nit ñi di dictionnaire ci lépp loo soxla di constitution ci lépp lu aju ci sa wàllu dund tey day tax nga yeewu ci sa wàllu àddina ndax ma faratna fil kitaabi min shay sunu borom def téere mu nekk njub nekk yërmande nekk waar ñeel ñi nga xamante ni ñoom ñoo ragal suñu boroom déglul aaya ju foor ju màgg ji nga xam ni jàpp naa ne doyoon na sëkk rek ab xutba aaya ji ngir nit ki xam fooraayu alquran sunu borom ni inna alladina gaa yi nga xam ni ci àddina ñoom yatluuna kitaab allahi ñoom seen mbir mooy dañuy faral di jàng téere yàlla bi jàng ma nag ka koy jàngale da cay dugg ka koy jàng da cay dugg ki nga xam ne moom euh, nafar farlu na ci alquran di ko nafar ci lay dugg mboolem koo xam ne daal am nga buumi jokkoo yu dëgër ak alquran yëgal ni ca nga bokk gaa yi nga xam ne ñoom dañuy jàng alquran ci àddina wa aqaamu salaata sunu borom ni ñuy taxawal julli waxtu wu jot rek dañuy yëg ni ndigleel sunu borom jot nañu daal di bàyyi lan doon def wa anfaqu mimma razaqnaahum li leen sunu borom wërsëgal li mu tuuti tuuti rek ña nga cay coppati di dimbali ñi nga xam ne ay néew ji doole lañ ndax xam nga ne bu neexoon suñu borom mu def la yow doo am koo ko am su ko defee yow kooka moo lay dimbali waaye yàlla mi la jox ngëneel la wallahu faddala baadakum ala baadin fi rizq yàlla moo ëppale ñenn ñi ci ñu ca des loolu jërul tiitaroo waaye la mat a def mooy dimbali ñi nga xam ne ñoom nga tane suñu mu ne yabuñ ca loola waaye ñoom day dañuy dépenser seen alal ci yoonu yàlla ci lu feeñ ak ci lu nëbbu ñooñe de bu yaboo nañ yëg ni mboolem ku dul ñoom it na yëg ni ñooñe de yarjuuna tijaaratan lan tabuur ñooñu moom ñi ngi ci commerce bu amul pertement te jàpp naa ni képp kuy yëngu kuy yaxant la nga bëgg mooy commerce bu am bénéfice bu bari sunu borom mu ni ñooñu yarjuuna ña ngay yaakaar ëllëg buñ dajeeg seen borom tijaaratan commerce boo xam ne lan tabuur amul pertement déedéet loo dugal ci marchandise lu mu tuut tuut tuut rek amul pertement mooy aay yi nga jàng ci alquran ak li nga ci xam ak li nga ci mokkal lu mu tuut tuut rek yëgal ni buñ la ko fayee rek nga xam ne liggéey ba jar na ko kon amul pertement sunu borom ne li waffiyakum ujurakum dama leen di fay seen yool bañ doon sonn ci alquran waaye su ma leen fayee bañ ni doy na nag ma wëlbati ko wa yazidakum min fadli wa yazidakum min fadli ma dolli leen ay ngëneel xoolal ay ngëneel la lim borom subhanahu wa taala bu waxee ay ngëneel ngëneel nu mu kenn xamut nu mu toll ndax jàpp naa dama lay fay dong doy ndax bu la fayee nga am loo tàbbee àjjana waaye bu la dollee ay ngëneel na nga am loo gën a ñokkalee ci ajana dana xam ngeen ne ajana ay darajaat yu kawe la ca kaw sunu borom mu ni innahu moom sa borom yàlla gafuur ku bari njéggal la shakuur ku borom cantaakoon la moom suñu borom ku ñuy sant la kon ki nga xam ne yàlla def koo xéewale du ma wax natt dangay ngay dégg naa man de yàlla mu mën a too maa ngi def nangam déedéet ëpp naa wax ki yàlla xéewalee muy yëngu ci alquran da koy jàngale da koy jàng day dimbale ña koy jàng day dimbali ña koy jàngale bàyyi daara yaayu daara la ak lu mën a doon rek am na buum gu ko jokkale ak alquran ñooñu nañu yëg ni nekkuñ ci natt waaye ci xéewal lan nekk te yëgunu ko la ko waral mooy yonente bi dañuy xayrukum man taallama alqurana wa allama ki gën ci yéen ñu ne waaw mu ne mooy ki jàng alquran di ko jàngale moo ne boo fàttewul de ba yonente bi wax loolu ña doon jihaad ña fa ñeneen doon joxe seen alal ña nga fa woorkat yi ña nga fa kati màkka yi ña nga fa umrakat yi ña nga fa yonent bi mu ni xayrukum ki gën ci yéen mbooloo mi man taallama alqur'ana wa allama mooy ki jàng alqur'an ak di ko jàngale jàpp naa lii moom ku amoon dégg-dégg ak xam waxu yonent bi fooraay ba nam toll ci lii rek ngay daal di fàqee rek daal di départ wuti yoonu nan laay def bokk ci waa alquran dëgg la ñëpp mënuñoo nekk ay jàngalekat ñëpp mënuñoo nekk ay jàngkat waaye nag yow fexeel buumi jokkoom na la yeew sa digganteeg alquran yàlla day subhanahu wa taala daf laa tànn yow jàngalekatub alquran yàlla daf laa tànn yow jàngkatub alquran sunu borom moo la tànn ci mboolem bindeef yi ngir ngay jottali téeréem bi allahu akbar njiitam réew wala kilifa diine wala kilifa yi ngeen xam kilifa guñ ci fal dafay jël ku ñu tuddee ab porte parole teg ko ci peggam kooka di ko jottalil ñun ñëpp xam nañ ni kooka martaba ju kawe lay am ju foor place ba mu nekk dana baax ca moom waaye nit ñi danañ ko ca ñee bu doon ci sunu làkk wolof fii ñu ni diw kat mooy géwélab diw ñu tànn la yow nga nekk géwélab sunu borom subhanahu wa taala ndax yaa jottale alquran maanaam yow fi mu nekk ni ndombay tànk yi ñuy takk bi nga takk moo gën a rëy ndax li nga takk bu ñu ko dañ tekki ci wolof li muy tekki mooy borom bi kat daf laa tànn nga nekk géwélam pour di ko jottalil ay waxam muy alquran yàlla daf laa tànn yow nga nekk ab géwélam boo xam ni kàddu yi génne ci moom moom suñu sunu borom di alquran kàddu yooyu ngay jottali allahu akbar téere ngi boo xam ni yàlla daf ko wàcce ngir mu génne nit ñi ci lëndam yóbbu leen ci leer génne leen ci sànku te yóbbu leen ci gindeeku waaye génne leen ci ngëlam te yóbbu leen ci leer euh, ci ci ak xippeeku waaye téere ngi boo xam ni ku ci topp dana mucc ku topp ay ndigleem gindeeku ku ci moy ëllëg da nga texe ku jëfe atte yi kooka yàlla dina ko yërëm tey dina am ay tiyaaba waaye ku topp ci ginnaaw téere bi nag di yàlla yàlla ngi nanga nga yëg ni fa ngay téere ji mooy biir àjjana yàlla suñu borom defal la lii rek jàpp naa ni mbokk yi waroon naa tax ñu gën a sonn ci alxuraan am na benn imam bu mag moom bi mu déggee yonent bi wax ni xayrukum man taallama alqur'ana wa allama ki gën ci yéen mooy ki jàngal di ko jàngal dafa daal di waaxu dem ca marché ba jënd am mbaam ñu ne ko waaw looy doyee mbaam mi mu ne bu ma xëyee di ngeen xam lan laa koy doyee mu xëy suba war mbaam mi topp buntu kër yi buntu kër gu mu yegg rek mu daal di wax amul ku bëgg a jàng fii alquran bu amee ku bëgg a jàng mu daal di wàcc maanaam li mu bëgg dox mënu koo dox moo tax mu jënd jot di wër nga xam ne loolu muy wër moom waru mbaam doo nga ci man dara waaye mënu koo dox moom nee na comme bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran di ko jàngale nee na kooku def na ñeen fukki at yoo xam ne loolu lay liggéey moom day wër rek akum mbaamam rek fu mu romb rek am na ko bëgg a jàng alquran foofu daal di koy jàngal dem yoon jàngale koo xamante ni séentuwu ca dara kooku kon xam na yonent bi waxam ni mu toll alquran lépp lu ñu la wax ca fooraay ba romb na ko lu ñu la wax ci njariñee romb na ko waaye su fekkoon xam nga dëgg-dëgg teraanga jure yi ci nga xam ne sunu borom dencal na ko waa alquran jàpp na yow da ngay jéem a ñee ñee ñee ñooñu jéem caa bokk loolaa tax ma jàpp ni kon doomu aadama bi lu luñ ko mën a gaaral ci kanamam fekk moom mi ngi ngoy ci alquran loola su ko bàyyee rek wàcc na loxoom saa bu ko bàyyee wàcc na loxoom yàlla xam ne ni bu la yàlla boolee ci waa alquran moo xam da koy jàng moo xam da nga koy jàngale moo xam nu la ci suñu borom boole nga ni ko fi ñukk nga dem defi leneen yàlla xam ne ni bisa yi xëy rek nga jékki-jékki rek xool gis ni yow ndeke wàcc nga sa loxo ndax li tax wàcc nga sa loxo mooy maanaam xayri yega ca boppam jàpp naa yi wan ko gannaaw a wóorut beneen bi ci des mooy wutukaayu tiyaaba bu gën a gaaw du romb jàng alxuraan araf boo jàng fukki tiyaaba lay doon defe naa benn paase rek boo ko jàngee fi ne ay junniy tiyaaba ngay daal di bëgg a am yemul ca loola waaye teral ngi suñu borom di teral waa alquran fii ci àddina wa kadalika ci àllaaxira gis nga alquran ba tey suñu borom mi ngi teral ñi ko doon jàng dëgg la nag nit ko jàng ba mokkal ko ba noppi daal di gën a torox ñëpp moom na xoolaat boppam xëy na dafa am ab gàkk gàkk bu mu def ndax jàpp na ab numéro bu ñu la ko joxee ne la wooteel it benn chiffre boo ko ci yàqee wala nga jaar jaaroo ci yoon wa la nga bëgg doo ko am am na benn imam bu mag ca imaam yu yàgg imaam jooju mu ngi tudd Hamza ibni Habib Azzayaat imaam jooju jàngalekatu alquran la bokkoon Xalaf ibni Hisham al-Bazzar nee na Sulaym ibni moo ko nettali ni ko benn bis daa xëy rek di dugg ci néeg kër Hamza ibni Habib Azzayaat nee na bi mu dugg see ci kër Hamza. mi ngi fekk Hamza mi ngi tëdd ci suuf di bërëngu ci suuf si di jooy maanaam di bërëngu jël lex bi di ko dóor ci suuf si di jooy bi mu yegsee comme ah, mi ngi mel ni yow mu ñëwoon ci sa kanamu kilifa wala ab sëb sëriñ wala sa borom xam-xam wala kilifa koo fonk rek fekk ko muy def noonu xam nga da ngay tiit ndax im Hamza ko ko xam xam nga ni ci aimatul qurra yi mag yi la bokkoon nee na ma daal di tiit bi ma tiit daal di muslu ci seytaane daal yow de maa ngi lay muslu ci seytaane mbaa jàmm mu ne ko lan moo xew ba ngay musulu ci seytaane ah li xew de mooy démb ci guddi damaa gént gént gu doy waar li ma gént mooy damaa gént alaaxira taxaw nee na bi alaaxira taxawee ñu daal di fang nit ñi génn leen ci àddina ñépp def du ŋaaral comme ni nga xam noonu lañ ko melalee daal di ñëw péncam suñu borom nee na ma dékki-jékki benn waay mu daal di wax ni ee nit ñi mu ni ee nit ñi mbooloo mi nga xam ne ñoo nekkoon waa alxuraan laa bëgg ñu génn foofu ñëw fekk ma fii ma taxaw mbooloo mi nga xam ni ñoo nekkoon waa alxuraan doon ko jàng képp ku ci bokkut nag ku bokkul ci waa alxuraan rek bul bu bul yegg si fii Hamza nee na ma ni ah man est-ce que ci laa bokk xaaral ma arrière man de lii daa mel ni wóoruta dem de nee na mbooloo mi commencé di rocceeku benn par benn nga gis ku fëlee fee génn nga gis ku fëlee fee génn mbooloo mi di ñëw di wuy si waa ji woote Hamza Azzayaat nee na ma ne kon bon bokkuma ci xaar ma arrière nee na fi ma commencé arrière rek ma dégg ku ma woo eh yaa Hamza taqaddam Hamza yegg si nee na ah, sama xel mi daal di dal nag ma daal di yegg si ñëw wuy si woote boobu. nee na bi ma wuysee ma ni labbayka daa ya rabbi mu ni ki may waxal ma ni ma dégg benn baat rek ma ne ko wuy si naa la yow mi nga xam ne yow la yàlla yónni nee na kàddu gi daal di déedéet. waxal wuy si naa la yow yàlla ndeke kàddu gi wax ak moom mooy suñu borom moom daa foog ne am malaakaay wax ak moom ndeke suñu borom ay moom mu ne yow wuy naa la yow wootekat bi nga xam ne suñu borom la yónni kàddu gi daal ni ko déedéet bul wax loolu waxal wuy naa la yow yàlla nee na ma daal di ah kon nag wuy naa la comme ni nga ko waxee ndax booba moom mbir maa ngi mel ni ay lépp ak ay lupp moo tax mu ne kon boog wuy naa la comme ni nga ko waxee nee bi loolu amee ñu daal di may jàpp dugal ma ci roq benn barab bu yaatu nee na naka laa dugg rek maa ngi dégg riiram alquran maa ngi mel ni bu la ko kenn waxati maanaam nit ñi jànkati alquran yi seen riir maa ngi foor lool nee na foofu nag tiitaange jàpp ma ma commencé di lox nee na ma commencé lox ah ñu daal di may téye am am lu ma téye ni ma yee eh, la basa aleyka amul benn problème jarul ngay tiit daal di may wax ni ma yéegal ci escalier bii ngay séen te nga jàngaale ñu dégg ah ma lan laa jàng waa ji ni ma jàngal suratul an'am mu ne ma tàmbali ca bopp saaroo comme ku mënoon alquran la ndax xam ngeen ne imaam ji imaam euh, euh, soba wala kenn ci imaam yi euh, buñ ko masaana wax ni ko hamzata azzayyaat lam ciy teg mooy fóoree alquran jàngoo ndax ni meloon ci alquran nee na bi ñu ma waxee loolu ma commencé jàng suratul an'am ma di ko jàng di ko jàng ba àgg ci aaya juróom benn benn fukkeel ba ma daal di yeggaale ci aaya ji suñu borom di wax ni wa huwa alqaahiru fawqa ibaadi yàlla daal mooy ki nga xam ni moo tiim jaam ñépp man leen moom leen nee na ma dégg kàddu gi naan ma waaw e Hamza est-ce que du man maay alqaahiru fawqa ibaadi ma ni ah kon fi ne xam na ni comme kii wax ak moom mooy suñu borom mu ne ko balaa ma ne ko on oh, kay yow kay yaay alqaahiru fawqa ibaadi mu ne mu ne ma continuer ma continuer di jàng nee na bi ma continuer ba saar wi jeex fekk maa ngi continuer yéeg ay escalier rek yu kawe mu ne ma jàngal weneen saar ma teg ci saar wa ca topp muy suratul araf may jàng suratul araf ba yegg si ci aaya ca mujj xam ngeen araf aaya yi ca mujj bokk na ci aaya sujud nee na ma daal di arrêté njàng mi rek di waajal pour sujud ñu daal may téye ni ma eh amul sujjóot liñ doon sujjóot sujjóot nañ ko fële ci àddina ba pare fii amul sujjóot ma ni ah mu ni ma daal di taxaw benn place bi ma taxawee benn palaas mu ni kàddu gi ni ma yow Hamza yow ku la jàngal ma ne ko benn waay bu ñuy wax Souleymane benn sëriñ bu ñuy wax Souleymane de moo ma jàngal alquran kàddu gi daal di ma ah dëgg dëgg dëgg Souleymane wax na dëgg waa Souleymane moom ku ko jàngal mu ne ko benn waay bu ñuy wax yaxya benn sëriñ bu ñuy wax yaxya moo ko jàngal mu ne ko yaxya de wax na dëgg waaw sëriñ boobu di yaxya moom ku ko jàngal mu ne ko mi ngi jàngee ci abi abdirahman abi abdirahman assulami mu ne abi abdirahman sulami de wax na dëgg waaw moom abi abdirahman moom ku ko jàngal mu ne ko kooku de mi ngi jàngee ci doomu bàyyi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam kenn ku ci ne day xam diwa ma jàngal diw moo ko jàngal kenn ku ne da doon xam sëriñ ñi ko jàngal kooku de ali ibn abi talib moo ko jàngal mu ne ali de na dëgg waa kan moo jàngal ali mu ne ko ali de mi ngi jàngee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko ah yonente bi de wax na dëgg waaye yonente bi moom ku ko jàngal ma ne ko bi de mi ngi jàngee ci jibril mu ne ko jibril de wax na dëgg waa jibril ku ko jàngal nag mu bi mu ne jibril ku ko jàngal nag léegi ma ne tekk waxatuma mu ni waxal mu ne ma taxaw waxatuma mu ni kàddu gi ne ma qul anta waxal yow mu ne ma wax ci sama xel ku jàkkaarloog buur bu doy ni suñu borom naan ko yow mel ni ko wax ak sa morom ah yow de moom dëgg dëgg mënuma moom nee na ma taxaw rek kàddu gi daal ne ma waxal yow ma ne ah waa kon bokk yow comme ni ma ko waxee ni ko suñu borom mu ne ko eh yow Hamza alquran ji kàddu yi sa borom yàlla la subhanahu wa taala giñal naa la ci yàlla giñal naa la ci alquran wa xaqi alquran mu ni ko yow Hamza tey laa nara a teral waa alquran ba waa alquran yëg ni borom alquran teral na leen allahu akbar mbokk yal na yàlla booleen ci loolu tey laa nar a teral waa alquran ba waa alquran yëg ni teral naa leen mu ni ko ee yow Hamza yëgal ni bëgg gi ma bëgg waa alquran man seen borom bëgguma ko keneen bëgg ku doy noonu Hamza jege si mu ni man kàddu ngaa ngi wax rek pour man balaa kaay wax rek suñu borom mu ni ma daal di jege si bi ma wogosoo mu fa dambaxani mu daal di may gëttal nag am na xeetu parfum bu neex boo xam ni daanaka as toq boo ko ci laalee rek mën naa laaj sa yaram yépp nee na mu daal di may gëttal nag parfum ba ma xeeñ mu ni maa ngi commencé xuggali ko ko xool defe ni man dong lan ma ko defal mu ni sunu borom daal ni ko ah defaluma la ko yow kese de defal naa ko ñi la jiitu woon ak ñi ñëw ci sa gannaaw ci sa maas ci waa alquran xamalal nit ñi ni leen alquran day yàlla moo ko ay waxam la waaye moo ko def mu nekk yëfi ay tànneefam giñ naa ci sama mbàggaay man yàlla fas yéenewumaa mbugal moo xam làmmiñ woo xam ne alxuraan moo nekkoon waxu kaayam yëgal leen ni leen fas yéenewumaa lakk jëmm joo xam ne danoon laxasoog alxuraan foo ko fekk fas yéenewumaa lakk tey xol boo xam ne alxuraan moo ca taataan fas yéenewumaa lakk tey nopp boo xam ni alxuraan la doon déglu fas yéenewumaa lakk bët boo xam ne tey alxuraan la doon xool allahu akbar mu loolu jottali ko nit ñi nee foofu nag sama xel daal di dal na tiitaange ji tàmbalee wàññeeku ma commencé di wax subhanaka subhanaka ah tudd naa sag sell yow yàlla tudd naa sag sell yow yàlla nee na ma jékki-jékki rek ñu daan waaw wóole ñi nga xam xamante ni ñoom dañ doon liggéey ci alquran hmm, ñi ci doon liggéey moo xam ka dem ca barabu alquran di leen moo xam ka jënd téere di may moo xam ka leen doon bindaanul moo xam ka leen doon toggal moo xam ka doon bind téere ko ah sunu borom ñooñu dañoo bokk ci waa alquran mu ne ko déedéet ñooñu mokkaluñ sax alquran waaye képp ku bokk ci buumu jokkoo gi rek sunu borom mu ni dana leen teral ndax ñoom ñoo doon wattu alquran ba alquran man fay des ba yowmal qiyam ñoom nañu yëg ni bépp aaya boo xam ni sonnoon nañ ca rek par aaya aaya laa leen di fay allahu su ma leen di fay alquran li mu toll ci ay aaya wala xaaju suuf bi li mu toll ci ay aaya wala li nga sonnoon ci alquran na mu toll aaya yooyu la la sunu borom di fay nangami aaya ñu ne am nga fi kat 1850 aaya yow ci ñi gën a tuuti la nga bokk yow ndekete 1850 a yow ci yow daanaka yow amee tasaaloon jëm suuf dong nga doon liggéeyal yow kon ndekete nga gis benn waay boo xamante ni daanaka liñ ko fay ci aw yiw moom mënu mënee su ko def ci ay chiffre parce que ma alxuraan jàng ca dënd ba mokkal na ko mën ko doon jëfe waaye sart bi nag mu ne mooy ki nga xam ne dafa jàngoon alxuraan ba nag wattu ko di ko jëfe nee na foofu rek ma daal di wëlbatiku jàkkaarloog Souley Souley mooy ndongo bi ñëwoon fekk ko ci néeg bi mu ne ko kon de li nga gis may dóor sama lex bi ci suuf di jooy mu ne ko wallahi rus ak am gàcce sama diggante ak sama borom moo ma tax di jooy allahu akbar kan ci ñun mbokk yi mooy koo xam bu géntoon gént gu mel ni nan lay def yaakaar naa ni boo yeewoo ak bi yëpp sax da ngeen di invité ñu daal di koy dégg ndax xam ngeen ni léegi la commencé rek nit ñi di gént di géntantoo ko xawant ci ay gént waaye yent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bu addina dee waaj a tukki bu addina dee waaj a tukki géntal gént ku gëm yàlla du faral di mooy lu bari bu àddina day waaj ku gëm yàlla nag lañ wax ndax nit ki su dëggoo ci ay kàddoo dëggu ci ay jëflanteem noonu lay dëggoo ci géntam boo dee bari ay tappale di wax lu amut noonu la sa gént di melit kadalik loolu borom xam-xam yu gëstu ci wàllu gént dañ koy wax te loolu mooy li am te ñu ñëkk ñoo kat wax dëgg yàlla seeni gént ak fan tolloon fa sun borom néew na ci ku ci daan gént lu dul day xëy gis ko wala mu gént lu dul fekk dëgg la kon jarut nga may yedd gàcce moo ma jàpp moo tax may def nii benn waay bu ñu abu mushil moom bi mu déggee xista bi dani moom dafa tëdd ba guddi mu gént gis ku ñuy wax kisaa yi imam kisaa yi ci imam yu mag yi la bokk moom it maa ngi ko gis kanam gaa ngi mel ni fellitu weer ma ni waaw kii kisaa yi ñu ne ahankay ci ñi gënoon na man naxu ci la bokk moom imam kasa kisaa yi kisaa yi si ba way xalil fara ak eh, ñooñu ci imaam yi gën a man naxu ci xeer wi lan bokk nee na ko wane ko waaw yow kisaa yi yow moom luy sa mbir mu ne ko man daal bi ma yegsee suñu borom ba mu ma jógee la ma jotoon liggéeyal alquran daal laa laa jekk ba tey fi mu nekk nii allahu akbar mu ne ko waaw xam xamsatu zayaat moom mooy kiñ doon nettali borom gént gii moom loo xam ci moom mu ni ko yuu kooku moom ma nga ca gën a kawe ca ay liyin ñun ñii moom kisaa yi mooy wax de mu ne ko ñun ñii bu ñuy xool imam Hamza fa mu nekk mi ngi mel ni yow mu toll ci kaw suuf ngay xool weeroo ñu naan xoolal weeroo feeñ na ngay laam-laami ndax gis nga ko gisoo ko xoolal diggante asamaan ak suuf ni mu soree mu ne ñun bu ñuy xool imam Hamza day mel ni noonu la ñu soriyantoo kon mbokk yi loolu daf lay wan lenn rek ci ngëneel yu yi nga xamante ni borom bi defal na ko waa alquran alquran day borom bi dafa def ni muy teree ay nit ci ci àddina noonu la suñu borom teralee ay nitam ci àllaaxira gis ngeen même yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu mësaan a xare ba ko sax ñoom la njëkk a jublu ci seeni mbir defar ko ci néew ya doog a dem ca ña ca des jekk-jekkal gaag laxd gaag muy mokkutal gaag façon suula yoo xëy na ñun amuñu ko ndax laxd suuf su dëgër moo ko man yooyu yëpp ñu ngi ko doon defal ña mokkal alxuraan ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu mus nit nit mësaan a mokkal quraan wala ci jamono yi nekk ca gannaaw daanaka yow moom falu nga buur fii ci réew mi boo seetloo ñi nga xamante ni ñooy sunuy bàyyi sunuy maam sunuy maamaat nga xam ne alquran ci seeni loxo la njëkk a tege yàlla xam ne ne bu ñu lay nekk leen ci seen dund ci ngay xam ne ñooñu moom sonnoon nañ ci alquran xoolal alquran joo xam ne pour nga jàng ko rek yow faw nga déplacé wu fii dem ba ca àll bu sori ba gone yi léegi boo dikkee ci daara yi daanaka ñaari at ñetti at ñu mokkal alquran dem seen yoon da ngay gis koo xamante ni daana def fukki at ak nangam ca daara ja doog xam bërki démb ci suba maa ngi am ku may waxtaanal koo xam ne daanaka du mag sax nag moom waaye mu ni daara jëm mokkale fii ci Sénégal ci Jurbel ba bind nee na bis bi mu ñibbisee toog na tisbaar ba gee jot te néeg yaayam la ni te xamul ku yaayam yaayam xamul ko ndax musuñu bañ ko yóbboo la jeex musu koo gis mu ni tisbaar laa ñibbisi fa laa nekk ba gee jot ci la sama yaay doog a xam ni moom ma jur man ci laa doog a xam ni kii mooy sama yaay xoolal yooyu loolu dañoo yaakaar ca mag njëkk ki may wax ni du mag gone kon moo lay wax ne ba léegi mi ngi am beneen bi ci mooy da ngay gis koo xam ni mboolem li mu am jaral na ko ko ay njabootam ngir nañ dem ñu jàngi alquran nga gis koo xam ni moom ca àll ba fa lay nekk benn téere laxdari risala muqaddima asmawi ibnu asir ibnu duray téere yu ñu doon jàng fii pour nga jàng ko rek da ngay dégg ñu ni sëriñ diw kat ma nga ca fuuta da ngay laxas dem newetal ko bayal ko ba nawet bi jeex pour mu jàngal la benn téere wala nga bayal ko ñaari nawet ñetti nawet pour mu jàngal la benn téere xoolal yëf yi ni mu yombee tey teewul alxuraan ja tey boo yoroon say junni yu bari nga dem ci marché bi doo gis kaamil buy jaay kaamil buñ bind moo doon am te xam ngeen kenn du bindu kaamil di ko jaay jamono jooju pour nga gis ab kaamil rek danga nga daan dem ci dëkk dëkk bu lëmm benn kaamil moo fay am boroom dëkk baa koy moom wala sëriñ baa koy moom tey kaamil yaa ngi ni gasar nga gis ñoom ni ñu sonnee ci Qur'an da ngay gis nit mokkal Qur'an ñëw damay wax ni léegi la commencé nit ñi di rëy la ka tuutal daay suñu borom la doon rëy fa moom tey mi ngi rëy da ngay gis nit mokkal Qur'an ñëw bàyyi may ko jabar bàyyi diw may ko nag bàyyi diw may ko sareet bàyyi diw daggal ko tool ñu tabaxal ko kër ni àllarba ji di ñëw këram la ñuy xëy sàkket ndax jamono jooju sàkket moo am àllarba ja ca topp moom mii toolam la ñuy xëy dañ koy bayal allahu akbar bi xujjati moom daa mokkal Qur'an xoolal googu fal gu rëy fii ci àddina ak yeneen ak yeneen ba tey jii ila yawmina hada sunu borom mi ngi teral waa alquran nit ki nag li muy gis ci bëtam su fekkee ca loola lay àtte ndax teraanga mooy ne da nga teraanga mooy yorum koom-koom déedéet teraanga du koom-koom kese waaye teraanga dana ñëwee ci fa anam gu ne wërsëg buñ ko waxee du alal kese waaye wërsëg day ñëwee ci côté bu ne moo tax képp ku yàlla dénk Qur'an wala nga bokk ci wàllu Qur'an ngay xool bëtam ñeetaange keneen ku nekku ci li nga nekk dëgg la nag nit ñi dañoo doyadal Qur'an ci bët ndax da ngay gis bu njëkkoon yére yu daggee ñu ni joxo sëriñ daara ba tubay ju xotteeku ñu joxo sëriñ daara ba desin ñu ni joxo sëriñ daara ba dëgg la yooyu jamono ko jamono toll ndax am na ñeneen ñu dul sëriñ daara te noonu lañ doon def ñoom it waaye tey jii wax dëgg yàlla borom bi subhanahu wa taala mi ngi teral waa alquran ci façon teral bu nekk lu ne nit ñi gis nañ ko ci ay xeeti pal ci ay xeeti jàppandal ci ay xeeti ñaan mu nangu ci xeeti suñu borom defal la sutura suñu borom maanaam façon boo ko natt rek da ko cay gis amaana tey nag xëy na lu mel ni xeeti luwaa yooyu ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne ñu ngi koy dugal bokk na ci yi ci nit ñiy séentu mooy jàngal ko no amutum koom-koom amutum koom-koom allahu akbar te yàlla digi ci lii mu ci digge pare nga ne amutum koom-koom ndax koom-koom lu ñuy téye ci loxo déedéet doomu aadama dëgg dëgg bi suñu borom defalul koom koom-koom ba du ne ci loxo ba koom-koom ba ci xol ba lay nekk tey sax am koom a ngi ci nag ndax yàlla tàggat na ay nit yoo xam ni ay nit yu baax lañ yu yuy dimbali alquran te sunu borom su ko yemoon ci jàng jàngale jàpp na ne ki mënta jàng mënta jàngale kon bu bëggee liggéeyal quran dana sonn waaye ba tey am na ñoo xam ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ci ñi ngi ci tey jii ku xool daara ju mel ni kokki ku xame xool daara ju mel ni Fass Touré ku xool daara yu mag yi nga xamante ni ci yi fi gën a yàgg tey ci misaal boo seetloo tey jëlal misaal daara kokki ndaa nangami junni lu mat ay fukki junni ndongo di fa nekk te kenn du fay ku leen di dundal yooyu da ngeen yaakaar ne par hasard rek la ko suñu borom di seetaan yi nii nii daara yu bari yoo xam ne da ngay gis ay jafeñ-jafeñ di fa am suñu borom di leen suturaal da ngeen yaakaar loolu bokkul ci ci suturos alxuraan ji am na waa joo xamante ni moom da doon jàngale quran ngir yàlla fa mu toog di jàngale benn waay da ko faa fekk ni ko kaay gunge ma mu jóg di ko gunge ñu dem ba ci benn tabax waa ji ne ko nañ yéeg ñu yéeg ndeke R plus 1 la ñu yéeg ci kaw ubbi xool mu wax sëriñ daara bi ni ko ah fii de xanaa ko fi toxaloon daara ji xanaa dana gën a baax mu ne ko yii fii kay yaakaaruma ne ñu mën fay ñëw ndax fii moom xam naa lu yaas bi dana seer mu daal di nuqi caabi ci poos bi ni ko dama la ko tabaxal may la ko ngir yàlla loolu fii la amee ndakaaru gi ngir doom danoon jàng foofu ci daara ji kese beneen waaye ngi boo xam ni dafa am ku koy yónnee ci téléphone am xaalis di ko ko may te xamul kan la ba ba suñu yàlla yàllay tey xamul kan la lan doo tax mu defal ko ko ngir yow da ngay jàngale alquran beneen waaye ngële boo xamante ni benn waaye moo ko jox ay hectares yi kon bu dee koom-koom lii li tax ma di ko tudd mooy nit ñi dañoo foog ni am koom amu ci uhum kay am koom a ngi ci de bu fekkee yàlla subhanahu wa taala dong moo tax nga nekk ci wallahi am koom a ngi ci te it doon am koom-koomu àddina sax moo taxoon nit ki di jóg waaye la taxoon mu jóg mooy mu am ngërëmal sunu borom subhanahu wa taala Euh, la ma doon wax lawla alquran lawla alquranu wa ahlullahi fi lxilaqi la dukkati l ardu dakkan fanzur suxufa waa ji mu ni bu dul woon ak alquran ak waa alquran yi koy jàng di kontaan loo sunu borom muy da ngeen di xëy xëy nii ngeen dégg Chine di ko def wala Taïwan jékki-jékki rek suuf si yëngatu wala Japon mu ni noonu ngeen de seen suuf si dana ko def tey kon jàpp naa ni mbokk yi waa alquran kenn gënu leen a foor jàngalkatu quran kenn gënu koo rëy fa kanam suñu borom su ko defee comme nit ñi léegi am koom lañ ciy xool ah waa ji nga xam moom alquran lay jàngale ñu di ko fay juróom-benn junni par weer ci misaal mu gis ab école wala ab franco wala ab ab liggéey ca nguur ga tax na léegi moom daal dinay xeeb loola parce que lee gën a dund ndax lee ma nga jàpp cent trente nangam moo tax i gis ngeen ko loo ci gis fi mu nekk nii daara yu bari ñu ngi tëj daara yu bari ñu ngi tëj lu ko waral parce que seeni borom ñee dañoo gis ni lii moom wax dëgg yàlla amatub koom ma bàyyi ko dem ci concours EFI yi ngir naa am ne amum koom foofu kee moom defut loola sax waaye nag da koo bàyyi wut keneen ku mu dëgg la mbir ma nam ndax keem ful la wóolu la nga dib jàngalekat mu jox la doomam mu dem ba mu yàgg gis ni yow da ko faa bàyyi dem defe sama sama sëriñ newoon na ma ku la dénk say ay doom te fu mu wëlbatiku dajeeg yow bu amee fay la lee mu jël si doomam parce que dénk la woon ay doom pour fu mu wëlbati ko daje fa dalaa dénk pour nga toog jàngale daral dëjul jàngaleel ngir yàlla yàlla dina ñëw insha allah fa sa yati allahu bi amri gis nga alquran ji képp ku ci nekk te jëmmi suñ borom ji rek rek rek rek rek tax nga nekk ci yàlla dong tax nga nekk ci nga di ko jàngale wallahi yàlla dina la teral ba sa xol féex ba même nit ñi buñ lay xool bëtëb dañ laa yërëm yow da ngay xool sa bopp bëtëb man fi ne ñeewu ma kenn ci kaw suuf loolu ñu njëkk ñi moom lañ xamoon xam nga ne léegi lañ commencé wax wax njàngu bu njëkk sax da ngay dégg paa yi ko naan man su ma doom ba ma da ngay gis sax am ci dëkkam sax maanaam ñoom Qur'an dañ ko tegoon foo xam moo tax it gis ngeen suñu borom teral na leen ña ko fonkoon ña fonkoon Qur'an nekk ba tey teraa nga jàng seeni kër buur ya fonkoon alquran naan sangara koo ci dem ci këram tey ay sagari mbaam nga ma beeg am na benn waay boo xam ne ma ci demee ci dëkkam subhanallah bañ ne ma kii fii la dëkk man xawma koo gëm kër goo xam ni ma nga ràpp sax ay ñax ca biir mbaam yaa ngay furti furti bi ma nee fan lañ ko suul ma dem ba ma ma xaw tuuti ko ñimewu maa dugg maanaam suuf si dafa mel ni suuf su fënax comme ak mooñ booy teg si tànk noonu la suuf sa mel sama xel dem ci aaya ja fa tilka buyutuhum xaawiyatun bi ma zalamu seen kër yaa ngi tey ràpp na kenn waxatul seeni wax bi ma zalamu parce que lan doon tooñ waaye ña nga yoon ci alquran tey demal seeni kër nga xool leen tey jii day sunu borom teral na leen ba teral seeni njaboot li may jeexalee mooy ñu xam ni gis nga alxuraan teraanga ji dafa yemul sax nga di ko jàng wala nga di ko jàngale wala nga cay sonn déedéet jëlal sa doom rek jëlal sa doom rek nga yóbbu ko mu jàngi alxuraan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yowmal qiyaama sunu borom day jël way jur wi teg ko ci piliyaanu or baay ak yaay piliyaan boo xam ne mi ngi lerax lerax ndax lumière leer bi moo gën a foor leeru jant allahu akbar ñoom ñi toog ci piliyaan yi xam nañ ni ndax bali insaan si basira ku ne yaa gën a xam sa bopp xam nañ ni lëggéeyuñ ñu yàlla lu tax ñu am lii moo tax ñu laaj laaj suñu borom waaw yow suñu borom ñun lan moo tax ñu terelee ñu lii suñu borom ni ci sababu seen doom ji ngeen jëloon jàngaloo ko alquran allahu akbar doom ji ngeen jëloon jàngaloo ko defe naa suñu dars yi paase maa ngi nettali xista boo xam ni ku feebar nekk en commun comment lu mat lu mat fukki at ak juróom médecin yépp jàpp ne day faatu ba soxnaam ay mbokkam dikk ni ko ñaanal baat nga dem ndax kii moom sayee parce que médecin yi saxal nañ ni kii day faatu ndax yuur gee am problème fukki at ak juróom yu mat sëkk mu tëdd ko hôpital bi muy balaa muy tëdd bàyyi na doom ju jigéen ju ñuy wax suma yéen doom ji ñëbu ko daara mu jàng quran ba mokkal ñibbisi li may wax ni lu am la du ay lépp bi doom ji ñibbisee mu ni day seeti baayam benn ngoon mu seeti baayam fekk ko mi ngi tëdd nelaw mu ni yaayam may ma tey fii laa bëgg a fanaan yaa ji ni ko def mu ni ko ñu jëm kaw jëm su mu ni ko fi laay fanaan su ma yee fanaan foofu ci hôpital bi bàyyi ba xaaji guddi mu jub naafi la tuuti ñëw ba tiim baay ji di jàng Qur'an di jàng suratul baqara bi mu jàngee suratul baqara ba jeexal rek seen baay ji bët yi di rayi rayi di xef xefax gi te loolu musu cee am ci fukki at ak juróom mu daan delluwaat julliwaat ñaar rakk ñaan yàlla jéggalu ñëw fekk ba di di gën a rey rey fekk mu sonn moom ndaw si xale xale la bu ndaw muy xaaral ma tëdd fi mu tëdd di nelaw rek mu déggee gis ku koy dikkal ci nelaw ni ko waaw yow waxtu wi fekk waxtu fajar la waxtu wi yàlla nangu ñaan da nga dof bay nelaw mu ne ma daal di yeewuwaat nee na bi ma yeewoo nag jug di jàng quran di ñaan man daal aw ma ci jekki jékki-jékki rek geesu rek gis bàyyi ji mi ngi jug toog li ma wax mi ngi xew Arabie Saoudite gi benn benn médecin moo ko nettali ci hôpital bi mu nekk fa la amee fukki at ak juróom ñëpp d'accord nañ ci ndaw si mu ne moom kay day xaar rek bu jógaatee ñu ànd bu jógaatut mu faatu ma tëjji ko mu jeex ginnaaw fukki at ak juróom moom bi mu jógee xàmmewul doom ji doom ji dafa daw sonk mu ne ko ba ma góoru jàmbur naka la laa jigéenu jàmbur mu ne ko yow sa tëraay yi mooy yàgg waaye amoon na doom ji ñuy wax suma yaa ngi koy fàttali mu ne ko am mu ne ko man maay suma yow mu sonk ko di jooy noonu la daal di génnee mu wér kon alquran la yonente bi doon wax sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla def na ci ay secret yoo xamante ni doomu aadama yi sax duñ ko xam ba keroog suñu borom di foqar ñu alquran yóbbu noo ngi ñaan suñu borom mu boole ñu ci min ahli alqurani wa xaasati اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم لا تحرمنا ثواب القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصته اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفف والغنى ونعوذ بك من الهم والغم والعجز والكسل ونعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى